jërëjëf mbokku téléspectateurs yi tey di talaata fanweeroon ak benn ci welu Zulette mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaan yàlla mi borom jàmm euh, buur bi nga xam ne mooy euh, borom jàmm ñu jàmm euh, ci li nga xam ne barki weeru koor bi di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom kattan mi nga xam ne moo ñu mayaat ñu jàkkaarloowaat ak yéen mbokku téléspectateurs yi seen magazine Rofo tey nag muy ñaari émission bi jëm ci vacances yi vacances xam nga ci la ñu ne làmb ji ku ne xam ne ni ñu ngi ci bër ku ci ne yaa nga dem toog su roq di préparer waat ngir déwén euh, looloo tax nag foog ñu ñëw dellu si waat nag ci yi nga xam ne jàlloon na fi waaye tey sunu invité fii nga xam ne fi la ñu nekk mooy WARC wark nag euh, muy charge de euh, centre de recherche africain bi nga xam ne professeur Ousmane Sène moo ko jiite mooy tey suñu invité moom laa dalal tey professeur salaamaaleykum. maaleykum salaam. maaleykum salaam. voilà euh, bàyyi la nga nuyoo ak téléspectateurs yi. waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal euh, jàmm ci weeru koor wi ñu nekk euh, di ñaamal ñaanal waa Sénégal yëpp jàmm wër di yaram ak fan wu gudd. di ñaan aussi que fi ne nga xam ne làmb ji dafa bër ñu ñaan yàlla déwén ñu mun ci duggaat mais duggaat ci fànn boo xam ne bii mm-hmm. dina wone ne acteurs yi nekk ci làmb ji. jàng nañ leçon ci certain développement yoo xam ne gëj jot nañ ko gis. Mm-hmm. et loolu dootul amati ci làmb ji loolu suñuy ñaan mu bokk ci li nga xam ne war nañ ko ñaan c'est important. Euh, c'est important mbokk yi defe naa ne làmb ji fi mu jeexee ku ne xam na ko tey mooy actualité bi mooy lan làmb ji dafa jeexee ci coow comme ni ñu ko daan waxee làmb ci coow lay ubbee. ci coow lay tëjee waaye coow lii nag du woon bu ñu souhaité coow lañ daan wax mooy na ma ko daanee ah ren ku dàq bëri ren kii mu ci espoir yi nangam ci ci ci mbër yu mag yi nangam waaye nii mu jeexee dafa jeexe ci loo xam ne moom la ñuy wax violence violence boobu moo daloon ci diggante Zos ak Boy ñaw ci noonu ci la histoire yi am ak li ci am am ci seen g bi nag toog na ci euh, li nga xam ne mooy euh, commission règlement et discipline jël ci ay dogal dogal yi mooy booy ñaw dañ ko aj juróomi at moo xale bi ñuy wax Jibi Guèye nekk ci écurie euh, école de lutte Boy Niang ñu aj leen juróomi at ki nga xam ne mooy dégool di personne morale bi ñu aj ko ñetti at boole kook euh, école bi moom la ñu ajandoo ki nga xam ne mooy ménage bi moom dañ ko dànkaafu ci la nga xam ne mooy coow la ci amoon ak entraîneur Zos ak Zos ci boppam sax ñoom dañ leen dànkaafu jox leen avertissement loolu nag mbokku téléspectateurs yi dañuy dem nag déglu ci ki nga xam ne mooy Thierno Ka di ki nga xam ne moom lañu ñu jox jokko bi ci CNG ak ñi nga xam ne réaction yi nga xam ne am na ci ku mel ni maître Sey di avocat Boy Sey am na ci réaction bu mu ci def ki nga xam ne mooy Souleymane Boun Daouda Diop mi nga xam ne directeur académie olympique am na réaction bu mu ci def ak yeneen ñi nga xam ne ay bonne volonté yoo xam ne seeti woon nañ leen nga xam ne ne ci diggante Boy Niang ak moo mbokk téléspectateurs yi dañuy dem nag déglu leen dellu si waat histoire bi nga xam ne dal na euh, diggante euh, Boy Niang ak CNG bi ñu sanctionné ko euh, avocat ne moom dafay porte plainte dafay porte plainte CNG bi jar na sax ñu yóbbu ko ba tribunal de sport est-ce que làmb ji tollu na foofu ak tamit ci wàllu tirbinal ci wàllu sport yow nga xam ne euh, yaay directeur académie olympique bu Sénégal ndax ci euh, <laughs> sport bi euh, avocat yi mën nañu porte plainte benn kii bu nekk ci ministère des sports pour yóbbu ko tirbinal des sport ci kaawu Boy Niang waaw maa ngi lay gërëm gañ parce que effectivement man déglu naa bu baax maître Ousmane Seye réaction bi nag dafa ma jaaxal parce que euh, réaction bi moom dafa bokk ci tano ténoru baro Sénégal et ni mu réagiré vraiment dafa contraire ak droit du sport parce que li mu jëkk a wax moo garaaw mu ni CNG bi muy convoqué Boy ñaa daf ko waroon a convoqué CNG xamul Ousmane Seye xamul maître Ousmane Seye CNG Boy ñaa la xam ak ñi licencié ci moom maître Ousmane Seye amul licence te sport. kenn du layal kenn ki def njombeem mooy ñëw layal boppam ñu déglu ko dikku ko euh, commission de discipline bi jël ay sanctions bokkul ak tribunal c'est-à-dire que tribunal la avocat di dem tribunal ay dem si dem mais tribunal sport ki def erreur mooy ñëw layal boppam. deuxièmement nee na CNG fekkewul euh, xeex bi donc mënul àtte ma ni ko juge yi nekk tribunal. si suba ba ngoon li ñuy àtte masuñu ko fekke ñu ko fekkee te ñoo ngi koy àtte masuñu fekke kuy sàcc masuñu fekke kuy agressé masuñu fekke ku njublang masuñu fekkee ku lekk ku détourné te ñoo ngi koy àtte donc euh, vraiment am na ñu nga xam ne référence lañu si dëkk bi bu ñuy wax seen wax dafa war a tegu fu dëgër ndax ni tribunal amee code pénal am noonu la sport amee kotam euh, loi portant charte du sport la loi 84 59 portant charte sport et CNG ba tey jii si kaw Boy Niang li mu def yépp daf ko teg si yoon tribunal arbitral nag bi muy wax du sport bu fa demee kenn du recevoir plainte am parce que kooku tribunal arbitral day arbitrer te fii amul benn contentieux ki jël sanction bi war na ko jël bu amoon contradiction c'est-à-dire bu ñu bàyyi woon Boy Niang plainte Zos dem tribunal tribunal jël décision bu contraire ak décision wu CNG mën nañu uti arbitre muy tribunal arbitral du sport mais fii benn décision moo am te ki ko jël moo ko war a jël muy CNG. léegi nag taxawaay booy Niang taxawaay ay mbokkam mooy lan booy ñaa juum na def na foot bu garaaw a garaaw a garaaw dafa nekk en position d' agresseur. mais circonstances yi mën na ko ak âge mën na ko mën nañu ko mën na ko jox ay circonstances atténuantes donc man mii di xam ni sport mooy sama métier bu ma ko doon digal dama naan ko bindal lettre CNG nga ni leen dama juum te nit rek laa xale laa dama juum baal leen ma ndax bu ngeen ma ajee juróomi at mën na yàq lu bari sama carrière te dama bëgg tedd ci làmb ci kon na ngeen baal ma loolu daal mooy atu dem CNG nag sanction bi diis na diisul kooku wax la parce que at bi yëpp violence moo rey làmb ji c'est-à-dire que ñëpp ak ko euh, dénoncé sponsors yi ñoo ngi xalaataat nu ñuy ànd ak làmb ji ndax violence deret ji bëri na agression bi bëri na CNG sanction bi pour man exemple la si jël et Boy Niang c'est le bon exemple parce que Boy Niang si mbër yi moom dong laa si dégg ni moo ngi jàng donc attitude am mënoon waroon a nekk leneen lu lii parce que Boy Niang dafa nekk modèle de référence pour élèves yi c'est-à-dire waaw mbër bu spécial la parce que day jàng donc élèves bu Sénégal yëpp gëm ko donc bu bu defee erreur da koy assumer nangu ko ñu xam ni kat tension moo tax mu def ko erreur la donc CNG bu ko bu ko sanctionné dafay def exemple lay def mais na demaat baalu ji ak ñu jëm ko sanction CNG jéem a réétudier cas bi moo gën ñu naan ay awak ay tribunal arbitral rek ay CNG fekk ko ak loolu. li may mujj nag mooy il faut ñu promoteur yi ak mbër yi xam benn affaire promoteur bu nangoo dugal cent million ci làmb c'est parce que investissement boobu dafa am ku koy garantir bu mbër nara nangoo jël avance. bàyyi li des bëre ba pare ñu fay ko dafa am koo garantir CNG mooy seen garant te tant que moo ngi fi ñoom duñ ko war a dooleel affaiblir CNG mooy affaiblir làmb ji tant que CNG moo ngi fi tant que état bi moo ngi def CNG. nañu dooleel CNG ndax mooy intérêt mbër mooy intérêt promoteur. nga détaillé ñu sanction yi ni mu demee ci Boy Niang ak sanction yi ni mu demee ci Dégol ak sanction yi ni mu demee ci école bi ba ci ki nga xam ne mooy manager waaye ci ci Boy ñan ak moom ak Jibi Guèye moom itam mbër la bu nekk foofu. lu ko ci boole. ñoom bokk na si ñu doon xam. dem di jëlee ay gannaay ci ay oto yi ma xamul yooyu donc ñoom ñaar ñooñu. la ñu euh, suspendre juróomi at yoo xam ne duñu ci bëri maanaam duñu takk ngemb duñu wàcc ci géew bi duñu ànd ak kenn ci géew bi. mën nañoo dugg nag dama liir ci benn journal ñooy teer nañu stade déedéet waxuñu loolu. Mm-hmm. nit ki mën naa dem ci stade seetaan làmb ju ko neex li mu mënul def kay mooy wàcc ci géew bi du ànd ak nit du dem bàkku ji du dem tuusi dara amul droit boobu. Mm-hmm. waaw loolu mooy ñoom ñaar looloo leen dal. Euh, dogool ak écurie bi. moom dafa tombeek moom mooy bàyyi Boy Niang waaye moom mooy président écurie bi donc dañ ne léegi ñetti at ñoom seen activité du ñu ko reconnaître euh, ñi si des ay lettre d'avertissement lañ neen jox mooy manager bi di Bourkhane di kii itam entraîneuru Zos Camara ak Zos ci boppam parce que euh, waa RTS fexe nañu ñuy jaaree fii ñuy jaaree fële mais dem nañu ba jonjoo am seen diggante ñooy nag moo nañu ko éviter. Mm-hmm. donc loolu fàttali rek li ñu war a def ak lu ñu warul def la donc ay avertissement lay doon loolu mooy li ñu jàpp. CNG dañ leen jox provisoirement pour ñu gérer affaire affaire mbër affaire lutte te ñoom ñoo waxal seen bopp ne face à face bi ñu def RTS diggante Zos ak Boy Niang ñoom teewuñu fa mais loo teewul fekkee woo fa. mais loo ci jëlee sanction CG bi nga xamee ne fekkewul teewul face à face ba yoonam waru ci woon nekk warul woon jël benn sanction sanction bi nu jël nag tey je crois que volonté la pour briser carrière yi Boy Niang parce que booy Niang tey bu fekkee ne doomi Alioune Sarr boobu la du jël décision yooyu ñoom ci seen bopp man bind naa leen sax lettre ne leen jël ngeen licence yi booy Niang ci fu ngeen ko teg nañ nañ tontu tontoo guñ ci xam na ne Boy Niang du bàyyi loolu mu sedd Hmm. xam nañ ne man damay def recours. ba ci tribunal ba ci tribunal spo euh, arbitral sportif sax mun nañ fa yoonu décision ba parce que duñ ko bàyyi. Hmm. duñ bàyyi décision bi mu demee noonu parce que jaarul ci yoon. décision daf boo koy jël dafa am procédure boo xam ne ci nga ko war a jaarale ci yoon nit ki dafa xam ne lii ci lii nga ko oo daf ci war a fagaru pour nga déglu ko boo ko dégloo ba pare décision bi dafa war a am base légale dafa war a am proportion ak ki li nga xam ne moom lañ koy toppee ki nga xam ne moom mooy jos tey moom baal ca moom li lépp moo war ko ki nga xam ne moom baale na lu ci CNG di di wuti bay bay bay bay at nit cinq ans kooku amul justification duñ ko bàyyee noonu bu fekkee ne dañu war a dem ba tribunal arbitral sportif dañu fa dem te teguñ ko ci yoon. dégg nañu euh, ci gasto euh, mu ne CNG teewu fa euh, te nee na am na ci boo xam ne woowu la waaye fekk na la fa. par voie de presse nga ko déggee xaw ma ku la woowoon loolu nu mu doxee. kenn amul kenn li fenn fu ma dem ci voie de presse dañuy def ay avenant ñu signé ko direction administrative maanaam ñaari manager mbër mi ak promoteur bi ak CNG kër yooyu lañ may jox donc du ma de du déglu ci presse du ma tax a dem fenn woo nañu ma ci bés boobu waxtu bi ñu ma wooyee fi nga ma fekk nii mooy fi may liggéey mënuma woon a dem. ban heure ba. boori 4 si loo xam ne lii seen kër xaw ma si heures lañ ko prévoir mënu ma woon dem. Mhm. donc moo wax ne mënu maa dem c'est tout. léegi euh, dëkk lañ ci awokaa bi. Mhm. mu a yéen war leen àtte loo leen fekkewul. waaw moom li mu bu ko neexee na wax lu ko neex na wax lu ko neex. léegi loolu la ci. moom mooy mooy wax. après ñu seet nag lan la ñu mën a def surtout na moom lu ko neex na wax moom mooy avocat bi nee na na na wax lu ko neex. kooku nag moom amuñu si luñ ci teg. waaw lu tax euh, nee na bi ngeen woo booy ñaaw boolewu leen ko ci. mos ñoo woo benn mbër bu ànd ak kenn lu ko neex nag na wax moom nee na avocat la comme moom spécialiste la dinañu yóbbu tribunal arbitraire xaw ma je sais pas quoi mm-hmm. vraiment amuñu si commentaire. loolu doo leen ci. amuñu si commentaire ñu nga xaar daal ñu ngi koy ñu xaar di ko déglu. jërëjëf mbokk yi ginnaaw bu ñu dégloo intervention yi nga xam ne am na ci diggante euh, coow li amoon diggante Zos ak ki nga xam ne mooy Boy Niang professeur yaakaar naa ne maître Sey mi nga xam ne mooy avocat Boy Niang ginnaaw bi Thierno Ka euh, euh, waxee li nga xam ne mooy sanction bi ak li tax ñu waral waral sanction bi waaye tamit. ak tamit porox ndoll bi nga xam ne ubbi nañ ko parce que tamit nit doo ko condamné ba pare tëj lépp am na côté booy bàyyi côté boobu tamit bëgg naa nga ñëw ci ci côté booy ñaw ñëw tamit ci li nga xam ne mooy maître sëy nee na moom affaire bi sax ba ñu yóbbu ko ci tribunal bi nga xam ne mooy àtte lépp jëm ci sport loolu lépp nag boo ko boolee euh, professeur yaakaar naa ne coow loolu euh, nan nga ko nan lan mooy ci sa réaction. waaw mais li li mu war a njëkk a wax sax mooy mënoon nañ bañ a yegg ci coow li mm-hmm. c'est-à-dire que am na noo xam ne nii euh, mbër yi waroon nañ ko mun a comporté wu. Mm-hmm. amateurs yi war ko mun a comporté wu ba nga xam ne duñ yegg ci coow loolu mais nag CNG am na droit jël ay mesures disciplinaires parce que moom la ministère bi donc moom la askan wi dënk làmb ji euh, lutteur mbër. mën nga def recours su fekkee ne yaakaar nga ne loxo euh, CNG xaw na diis mais gis nañ ko ci épisode Tyson euh, waa CNG daan Tyson loo xam ne lii dëgg-dëgg metti woon na parce que dem na ba ci ñetti at laa yaakaar bon am fuñ jaar foo xam ne fii diisoo nañu ak Tyson ba nga xam ne affaire bi delluwaat à la normale mais Tyson dellusi si ci làmb ji. donc loolu am na fu ñu mën a jaar foo xam ne fii mun nañu waxtaan plutôt que kii ne maa la yóbbu tribunal kale ne maa la yóbbu fii loolu loolu loolu taxawul te du faj dara mais li ma ci bëgg a wax ngañ mooy man affaire bi daf ma naqari doublement mm. parce que xale bi nga xam ne moom lay tuumal ci mbir mi ne moo liy yàq moo ko def